jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak projet def dara ni ñu koy baaxu ji defee fajaru samedi mooy ànd ak yéen ci rixlatun ila daaril axira yaa ayyuha llazina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum zunubakum wa man yuti wa rasulahu faqad faaza fawzan azima mbokk yi ànd nañu ak yéen ba agsi ci eh, aljanna tolloon ci nag eh, naka la nit ñi di dugge aljanna ak lan lañuy njëkk a lekk suñu bindu tey mi ngi tàmbalee ci ñoo xam ne yonent ba nee na leen soxla <laughs> seetetet xam nga soxla soxla aljanna ak soxla la ñaar yu benn danoo gis ci mbindum maam Sëñ Tuubaa ca raaya wax ju am solo raamal waraa nay la fadlin ñu ne waaw mu ne musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qarraaru nda wax ju nit ñi dañuy xëy di wëri mbaax mbaa xëy di wër yonent bi nit ñi dañuy xëy di wëri mbaax mbaa xëy di wëri yonent bi gis nga moo tax fi nekk nii jigéen ju am personnalité ñaare te bëgg a incarner personnalité bi du ko def ci col ndax ak col day yokk nit ku yokk ba noppi ku yokk ba noppi ak col moo la war a moo la war a soxla waaye waru ko soxla lu am solo la waaw lu am solo la ñiitam dafa am ñoo xam ne aljanna leen soxla aljanna leen soxla waaw mu ngook ginnaaw bi ñëpp soxla aljanna yonent ba nee na innal la tashtaaxu ila thalatha nee na ñetti nit a ngi nii ñoom ñu bëgg a wax aljanna daa yàkkamtee jot ci ñoom allahu akbar ñetti nit xam ne aljanna daa yàkkamtee jot ci ñoom gis nga feddet yii tey siiw ci lañ nekk bari mbaa football mbaa leneen bu nu ñëwoon ci restaurant walla ci barab mbaa ci kër mbaa nàngam dangay mel ni kër gee leen soxla waaye ñum soxla wuñ kër gi waaw tabarkal la léeg-léeg gis ci tubaab yi ñoo xam ne nangu nañoo fay Ronaldo pour mu sol seenu dàll waaw nangu nañoo fay Messi pour nangam nangam aljanna dafa soxla ñett ñan aliyu Ammar Salman allahu akbar aliyun ammar salmaan waaw léegi nag yëg-yëg googu nga xam ne moo war a am ci jullit mooy question mooy lu yu def ba aljanna soxla ko nga am programme boobu ndax aljanna boole la ca looloy wax ci Seydina Aliyu la ëppoon ci lim feeñe mooy xam-xam lu ñaaral la mooy doylu saxaaba yi ñu ko ci ëppale woon ñoo ëpp ñim ci ëppale ndegam sax moom ëppale woon na kenn waaye dafa doylu woon doyloo lam am di dund lam am a kës néew mu nangu ko bokk ak bokkam nangu ko bokk ak pénc bi keroog ba alquran naan yuufuuna bi nadri wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira yuufuuna bi nadri bu ñu defoon bay na xaw sey ne defa trois trois points moom lañ ciy bind soxnaam ak i doomam waaw alquran nag du bind ay tur waaye ba mu joxoñee ba noppi saxaaba yaag taabiuuna yaag salafu saalix nun ñi ak ña ñëw suñ ginnaaw ak ñëpp nangu nañ ne Seydina Aliou la alxuraan doon joxoñ ca yuufuuna bi nazri wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira wa yutimuuna wa yatiman wa asira def kon ñun ñi dégg ñun tam yëg ne aljanna daa soxla Seydina Aliou ñun tam nañ fexe ba wut xam-xam maandu ci xam-xam doy lool li am wut xam-xam maandu ci xam-xam doyloo liñ am Ammaar ndeysaan Ammaar ñoom Yaasir seen famille boobu seen famille boobu ñoom tam dañoo mënoon muñ aw métit te diine tax muñ aw metit te seeni bokk tax waaw dégg ngeen maam Musaa Ka ca barsan ba yaasir ca dóor yàlla faatoo Mustapha ku jullee ñu rob ko tàbbal ko fi jannati allahu ca barsan maam musakka salmaan salmaanul faris moom faris la jóge ca persi la jóge iraan la jóge di xeeñtu dëgg di xeeñtu njub ba jàkkaarloog al al mustapha sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan mook moom mook moom ba benn bis yonent bi rëdd aw rëdd daat ne amaarun minna amaar kay dugg ci rëdd bi ak ah, salmaan kon ngeen baal ma salmaanul farisi léegi kon ki dégg ñii nga xam ne aljannaa leen soxla nga bëgg mu soxla la jàngal seeni jikko jéem ko jikko woo jéem ko roy boo demee ëllëg nga bokk ci ñu aljanna soxla waaw waaw tabarkàlla dal nañ ko am ngeen am ko mu ñëw ci beneen tomb professeur mooy taamu ahlil janna taamu ahlil janna wa sharabuhum waaw ku dugg aljanna looy lekk ak looy naan ku dem aljanna looy lekk ak looy naan cey waaw waaw sunu borom mi ñuy wax wa yutaafu alayhim bi sihaafin min zahab waaw wa akwaab wa fiiha ma tastahil anfus wa talazzul ayun waaw ndeysaan wa antum fiha xaalidun borom bi nee na ñi dem yowmal qiyaam dugg aljanna dafa am ñuy baagantey dem ak ñëw ak palaati or palaati or nag lu def dëxin <laughs> de day yàq valeur am palaati or du def ndambe ngeen baal ma yéen lekk ndambe ki dëxin ndaw ko ndaay waaw xam naa imaam Abdoulaye de ndaw tubaarkàlla ca ndànd waaye palaati or lu ngeen defe ne moom lañ cay def lu ngeen defe ne moom lañ cay def ku ci nekk yaa ciy xalaatal sa bopp lay dem ca palaati or xam naa ni daal palaati or moom la muy def du def yenn togg yi parce que loolu day day wàññi day wàññi dignité am personnalité am <laughs> allahu akbar nee na palaati or ak koppi or wa ak koppi or palaati or koppi or it xam naa <laughs> boo witul yu yu du ca dem waaw ya cay dem ci koppi or yooya bu dee xeetu kafe kafe ga muy doon <laughs> bu dee xeetu meew meew ma muy doon tabarkalla wa fiha ma tastahil anfus lay nekk ca kopp ya kaase daal mooy la nit ña xemmem lay nekk ca kopp yaag kaas ya lay nekk ca kopp yaag palaat ya mooy lay bànneexal bët danga koy xool mu rafet nga ñam mu neex wa antum fiya xaaliduuna te du jeex wa antum fiya xaaliduuna te du jeex allahu akbar mbokk yi maa ngi ci rixlatun ila daaril axira ndeysaan yàlla nañu fa fekk yéenoog yéen te fekk fa yaay Maodo mu waxaat ci taamu ahlil janna wa sharaabuhum innal muttaqiina fi dilaalin wa uyuun waaw wa faake mimma yashtahuun kulu washrabu hani am bi ma kuntum taamaluun dana ñi amoon jom ci àdduna al muttaquuna ñu amoon jom ñu amoon jom doon bàyyi yàlla yi tere hein bu ñu demee ëllëg dañuy nekk fii zilaal wa uyun nekk ci ay ay ker ak ay bëti ndox nekk ci ay ker ak ay bëti ndox nekk ci ay furwi yi ñu bëggoon ndax àdduna fi ne koo song am na furwi boo xam ne mooy furweem waaw li ëpp ci jigéen ñi banaanay seen xarit waaw ak man mii <laughs> waaw ngóor su ngóor su neex deret soosu waaw banaana moom yi ñuy jëfandikoo ci fruits yi moo ci gën a neex deret banaana ku neex deret la <laughs> waaw naqari wut a ŋàbb naqari wut a xolli naqari wut a sàq mi banaana moom ku neex deret la mooy ngóor su neex deret soosu waaw ba ñuy nekk ci daal daan way pëloox ngóor su nooy si pataasay ndeyam waaw puloox nooy na mu ne waaye pataas mi yaay ma ko gën a nooy foofu waaye daal banaana ku neex deret la yowmal xiyaam nit ñi dañ ko soxla lool mën a jigéen ñi am na jigéen jigéen joo gisee rek daanaka am na fureem ma wax ko tey waaw am na fureem moo tax boo boo xasee xam fureem rek tey ngeen juboo <laughs> waaw te te nga bañ nay nag di ko jënd dee leen wàccaale sërica ndax lii defar kër ci la bokk waaw dee leen wàccaale sërica ndax lii defar kër ci la bokk ku sab jeeg bëgg banaana deel wàccaale banaana ku sab jeeg bëgg pom deel wàccaale pom ku jeeg bëgg yu ndaw yooyu ñuy tuddee régin raisin deel wàccaale raisin waaw rekk tabarkal boo agsee tamit boo ko ko ne jàpp rekk dugg sa néeg déedéet da ngay toog ca saal ba <laughs> xolli boppu banaana bi waaw jox ko waaw wala tegg ci resin yi benn sexal ko waaw wa aasiruhunna bil maaruf sunu borom nee na na neex <laughs> sunu borom nee neex ndeysaan Aminta na naa nekk rajo Dunia waaw ne moo nekkoon soxnas Abdoulatif Guèye ñu toog di waxtaan ba mu yàgg mu ne xam naa <laughs> jëkkëru jëkkëru sëriñu daara mu ne ah mu ne ma bu dee ku dégg daara ma ne ko ah ne moo dàq ci jëkkër yi ma ne ko ni nga ko waxee ko ni ci boo diwee kër gaa yi la kenn mësu koo gis rek ma yem foofu <laughs> dégg nga eh, rixlatun ila daaril axira taamu ahlil janna wa sharaabuhum masalul jannati lati wu'ida almuttaquun tajri min tahtiha al anhaaru ukluha daa'im wa dhilluha tilka uqba alladina taqaw wa uqba alkafirina annaar allahu akbar sunu borom nee na misaalum aljanna misaal nag bokkut ak yëf yi dañ la koy jox exemple rek pour nga xaw koo xam waaw pour nga xaw koo xam mu ne misaalum aljanna ma nga xam ne ña am jom lañ ko dig ndax yàlla du dëkk ku ñàkk jom mukk luy ko am jom mooy kuy jëfi ndigal tey bàyyi tere waaw koo xam ne loo ko tere lu du ca dellu loolu koo koy ko am jom waaw nee na tajri min tahtiha al anhaar nee na aljanna dex yaa ngay dox ca suuf branché nañ ko ba noppi aljanna branché nañ ko ba noppi maanaam sunu boroom fii daf nu fi jàngal aw dëkkin saa boo déggee aljanna rek danga nga dégg tajri min tahtiha al anhaar mooy lu jiitu nit ñi di ñëw dañoo dugal tiwo yi génne mbedd yi waaw dañoo dugal tiwo yi génne mbedd yi génn espace vert yi nit ñi door a ñëw dëkk quartier boo gis mu mel noonu wala dëkk boo gis mel noonu wala dëkk dëkk ba na muy màgge dana rafet mbedd yi dana génn waaye dëkk boo gis tajjire yi mintatel an xaaru amu ca génnewuñu mbedd ya xanaa dañuy dagg rek nattal kiy jaay nattal kee jaay dëkk boobu du am ay mbedd du am assainissement mukk du ko mën a am sax waaw du ko mën a am moo tax su boobaa bu lakk amee yàlla tere oto booy fay du mën a dugg bu ñu indi bagaas oto mënu fa dugg mbedd su xat lay am waaw mbedd moo xam ne oto bu ci duggoon sax ba demee ba ci biir bu demee ci tournal ba du mën a jàdd ala kulli xaal aljanna neex tajri min tahtil anhaaru assainissement ba mat na sëkk waaw ndeysaan euh, ñu ñu branché tiwaay yi indi ci këri nit ñi ndox sàngara lem meew walla soow nee na ukluha daim aljanna ukluha daim luy ukluha daim da yendoo lekk xam naa <laughs> ndaw ku ndaay bu demee aljanna ci nii ñu mel nii te aljanna kenn du fër ukluha daim maanaam aljanna amul ndékki xaar ba añ nga lekk añ xaar ba reer nga lekk noo aljanna amul loolu aljanna moom ñu dong daara mel ci këram rek la al la nit di mel ci aljanna mooy lan ko rek kojomtu jomtu rek <laughs> ndeysaan amoon na sunu mbokkum daara waaw imam Ibrahima Dia nee naa ko nit ñi yaa ci dàq kër da daan ree ba sonn boo duggee néegam <laughs> imam Ibrahima Dia da fa fekk gerte caaf fekk fa gerte guñ lakk fekk fa gerte mbaxal imam Dia fekk fa bonbon fekk fa petit bo petit beurre fekk fa fruit ak parfum mu néew waaw imam Ibrahima Dia yàlla na ko yàlla yërëm waaw te lii ñuy wax lépp yàlla nekk ci ay wërsëgam nekk suñuy wërsëg waaw mu nga wax ukluha daim yàlla nee na aljana lekk ga amul arité bu dee meññit garabe duñu rak bu dee lekk da nga yendoo lekk fanaanee lekk lekk rek te nag kenn du fër kenn du fër wa dhilluha wa dhilluha yàlla nee ker aljana ker gi naaj du ko toxal ni lekk gi mel la ker ga mel ker ba faw allahu akbar tilka uqba alladina amanu alladina taqaw ngeen baal ma tilka uqba alladina taqaw ñu amoon jom ñépp fii lañ jëm wa uqbal kaafirina naar ñu ñàkk jom nag ñoo jëm fa ca des mbokk yi maa ngi ci rixlatun ila daar al axira maa ngi ci tomb tomb bu tudd taamu ahlil janna wa sharaabuhum waaw la waa aljanna yi lekk ak la ñuy naan fa amma man uti kitaabu bi yamini fa yaqulu haa umqra'u kitaabiya inni danantu anni mulaaqin xisaabiya lu ci baram ba teg foo fi iishati raadiya fi jannatin aaliya qutuufuha daaniya léegi nag kulu washrabu hani am bi ma aslaftum fi ayaami alxaaliya sunu borom nee na ku dem yomal xiyaam ku dem yomal xiyaam ñuy rappel ña at mi nga dégg sa tur ñëw ñu jox la sa bulletin ci sa loxom ndeyjoor bu la neexee bàkku waaw la waa ji toogoon ci moom suñ tubaab mu yàgg mu ne moroom ja maa la gën sëriñ bi gestu ko ne ko teel na de <laughs> waaw toog ci jotaayam yàgg rek mu ne mbokk ma maa la gën maam si Tuubaa ne ko teel na de ñëpp na selaw mu ne ko balaa kenn wax nit ne ko maa gën muy lu mu lu jaar ci yoon mu ne am mu ne dañuy dem yomal xiyaam nga jot sa téere ci sa loxoom day joor dugg aljanna te duggut bala ñu waxee nga ne ko ay diw am xool la nga ne ko maa gën waaw kay cey waaw sawfa tara isan jëlal xubaaru afarasun taxtak aw ximaaru moom Cheikh Alhaaj Malik ca bayta boobu mu daan baamtu mu nekkoon kuñ joxub téeréem ci loxom ndeyjooram bu ko neexee bàqu lu muy bàkkoo haa umaqra'u kitaabiya ndeysaan liir leen samay not kum neex na liir waaw fi ne bu xale yi defee bac wala ñu def en transition wala ñoom seen yooyu wala sax ñu def ñu jëli seen note ku seen note baax boo ñëwee sa papa liir ku seen note baaxul léeg-léeg nga moxoñ ko sànni waaw wala boo ko mox ñu ñëw say tànk laxasoo nga dugg ci kër gi haa umu qra'u kitaabiya liir leen samay not inni zanantu anni mulaqin xisaabiya man dama damaa yaakaaroon bi si biir moo tax ma waajaloon ko ah waaw waaw waajee wax de day bàkku de damaa waajaloon bis damaa damaa jortoon ne bis bi dana am moo tax ma waajaloon ko gis nga examen xale baa nga koy waajale keroog ba mu xëyee dem école waaw waaye ba dëkk ba mu des une semaine wala ñetti fan looy waaj loolu du sotti mu ne nag sunu borom teg ca de huwa waa ji fa huwa waa jooju fii ishatin radiya ndeysaan mu ngi ci dund gu neex ma nga ci dund gu neex waaw fii jannatin aaliya ma nga ci aljanna ju kawe fii ñuy wax na ay R plus un ah ku dem foofa xam fii jannatin aaliya aljanna ju kawe joo xam ne la lay yéegal du ascenseur yi la lay yégal du ay escalier waaye fii jannatin aaliya xutuufuha daaniya aljanna amul garab goo xam ne da ngay xalab mbaa ngay yéeg mbaa ngay bàcc seetit aljanna amul garab goo xam ne da ngay xalab maanaam sànni ca kaw pour mu daanu amu fa wut ab balax di di di bàcc amu ca xutuufuha daaniya meññit mépp a jege suuf lu waay gàtt-gàtt jot lu waay gàtt-gàtt jot ca meññit ma waaw waaw te nag foofu sax kenn du gàtt ñëpp ay njool la ñuy doon aljanna kenn du ñaaw aljanna kenn du màggat hmm, mukk aljanna kenn du màggat âge bi ñëpp ay maase waaw sunu borom ne kulu lekk leen washrabu te ngeen naan hanii an ngeen noppaloo ko ñu ndokkeele leen ko bi ma aslaftum fil ayaamil xaaliya waaw ndax la ngeen doon sonn ca fan yële weesu woon ba ngeen di nekk àdduna mbokk yi waa aljanna ngoog seen lekk ngoog seeni naana ngoog yonent ba nee na ñuy lekk di naan waaye du ñu dem toilette du ñu ñendeeku du ñu tuur ndox waaw aljanna amul ay toilette déedéet aljanna amul ay toilette amul ab sën mukk <laughs> waaye aljanna neex waaye yàlla nañ fa dugg ngeen dugg fa yàlla nañ fa dugg ngeen dugg fa mbokk yi bind bi jeexut teg leen seen baaraam foofu ñu ko dégloo benn yoon ñaar ñett ba jàpp ñeent incha allah indi beneen bind bu bees ci rihlatun ila daaril axira ngeen koy am par samedi bu jot ci waxtu wi ñu ko dégloo benn yoon dana ñaar incha allah jënd ñett ba ñeent ñu door a am bu bees jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar ñoo nekk ni taxaw yor seen i kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu sponsor bii C3S mi nga xam ne ma nga fële ca Kaolack gars yi di xëy di ko rang muy muy jaay lu baax te du xumaag yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.